Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi ànd ak ñun ci seen site bi di Thiès Info di leen nuyu bu baax a baax di leen ziar waaye itam di leen ndokkeel ci bisu màgg bi di bisu taga di bisu tabaski ñaan yàlla lépp lu jàmm yàlla na ko yàlla nangu ñu ko ay déwén déwén yàlla na fi yàlla def jàmm gis ngeen ñu ngi fi nga xamante ni moom moo di kër euh, président seenu Diouf di responsable politique euh, bu APR ku ne xam ne taxawaayam ci dëkk bi tey di ñëw ndokkeel ko ci julli gi waaye itam bàyyi ko rek mu mu jox leen message déwénati yam président ñu ngi leen nuyu bu baax baax di la ndokkeel ci julli gi bàyyi la nga nuyu ak ñi nga xamante ni ñoo lay bàyyi xel. jërëjëf Boubacar maa ngi lay nuyu di nuyu Aada di nuyu Sey Latir seen président di nuyu waa Thiès Info di nuyu waa Sénégal di nuyu waa Thiès di nuyu waa APR di nuyu même opposition bi di nuyu daal ñëpp di nuy kilifa diine yi di nuyu Sénégal yëpp di leen ndokkeel ci bis bu tëdd bi. bisu tabaski bi yàlla may ñu fekke ko ci jàmm salaam ak dal ah, di ñaan yàlla yàlla may ak ñu ko may ñu fekkee vraiment kàddu gi loolu woon di leen nuyu di la jëfal merci beaucoup. voilà merci beaucoup président euh, tabaski bi tey la woon fet bon fet fete nañ ko ci ci jàmm ci situation boo xamante ni euh, réew mi xawoon na yëngu ëmp waaye jamono bi euh, nemmeeku nañ fi dal en tant que responsable itam am nga ci gis-gis. waaw c'est vrai que dëkk bi yëngu woon na mais ñuy sant yàlla. sant yàlla ba nga xam ne ki jiite dëkk bi muy la chef de l'État le président de la République Macky Sall ànd na ak xel bu dal ànd ak lucidité ba gérer sa problème parce que c'était un problème ba nga xam ne commencé na jaaxal Sénégalais yi ndax fitna gi fi am ah dama ne mosu fee am waaye géej na fay am mu nekk fitna bu méttee métti métti bu ñëpp ñaawlu bu ñëpp naqarlu mu nekkoon itam mbir ba nga xam ne bon vraiment buñ ko géré woon avec euh, euh, prudence mais avec sécurité noon naa taal Sénégal mais aussi ñu gérer ko ak xel ndax euh, am na nu mu doon demee itam ñu jaxase ñoog àdduna jaxase ñoog euh, biti réew mais vraiment président de la République ak les force de défence et de sécurité ànd ceeg xel bu dal xool nan lañ ko mën a doxalee ba jàmm continuer di am Sénégal. te kenn du ne dañoo bafouer les droits des uns et des autres donc loolu vraiment ñoo ngi leen ciy jox un grand satisfecit ndax sénégalais yi tiitoon nañ ci tabaski bii ñu waroon dem ah, mu nekkoon période ba nga xam ne activité commerciale yi dafay macha allah dafay développé loolu yëpp na doon yàqu xaw na sax laal sax njaayum xar yi mais sant yàlla alhamdulilah ba constaté wuñu yenn pénurie yu métti yi. donc daal ñoo ngi ciy sant yàlla di ci remercier waat le chef de l'État ak les forces de défense et sécurité. ni nga ko waxee nee nga maanaam njiitu réew mi jël na ci ay matukaay ak yeneen kilifa yoo xam te ne ñoom ñoo ŋànk wàllum kaaraange dëkk bi waaye gis nañ ni que mbir moomu kenn dong la concerné mu di Ousmane Sonko ba tax na sax moom itam barki démb gis nañ mu def benn message ci wàllum julli gi. yéen a bokk maanaam euh, langue politique bi tey ji euh, message bi nga xam te ne dem def na ko ak par rapport Ousmane Sonko jamono bi est-ce que li muy dund maanaam ñu barricade këram mënut a génn mënut a dem fenn euh, est-ce que loolu yéen na maanaam. waaw Boubacar xam nga dans la vie d'un état un mooy la nga xam ne vraiment dafa dépassé ay parti politique ak yooyu kuréel la ba nga xam ne daf ñoo boole ñun ñëpp ci benn territoire géographique. boole ay xeet ñu ànd di dund ci jàmm war dund ci jàmm ak salaam jàmm ak salaam boobu noonu nag état moo ko war a sécuriser état moo ko war a garantir donc euh, état bu demee ba gis ne benn personne ak ku munti doon ak maqaama bu munti am moo ngi yee fitna wala boog chaque fois bu génnee ay nit ñàkk seen seeni bakken ñoo ngi dajj ay banque ñoo ngi yàq ay commerce jàmbur état li ko war moom mooy vraiment mu fexe ba sénégalais yi vraiment dans leur ensemble kenn bañ leen teg benn toor kenn bañ leen yàqal quoi que ce soit loolu nag dafa nekk li ñuy wax une mission régalienne de l'état ko képp ku nekk état waruloo xaal ñu naan la jugal nga défendre sa population jugal nga assurer l'ordre public maa ngi dégg yenn boroom xam-xam yi wax naan euh, état dafa violer les droits de Ousmane Sonko parce que pour ñu mun a barricade këram il faut une ordonnance du tribunal boroom xam-xam yooyu dama leen di rectifier dama leen wax ne dans l'assurance de ses missions régaliennes l'État n'a pas besoin d'une ordonnance du tribunal pour assurer l'ordre public parce que xam nga mbir mi même bu dul affaire de juriste dangay xool lu yenu maanaa tey état bu toogoon di xaar ordonnance du tribunal tribunal boobu ñu taal ko ban juge moo lay jox ordonnance. kon daal jàpp nga ni état mais dama la ah yow dama lay laaj am na la nga xam ne soxlu sax ngay nekk juriste xel la laaj état tey bu toogoon di xaar. ñu naan dañ koy jox benn ordonnance pour mu mën a maîtriser Ousmane Sonko fekk ay niti Ousmane Sonko dem nañ taal tribunal bi nga xam ne fa la juge yi war a génnee ordonnance bi fan la état di jëlee ordonnance pour assurer l'ordre public kon nga xam ne wax jooju yéen wul maana yéen nit ñi bu ñuy wax bu politique tax li ñu naan malot malhonnêteté intellectuelle wala farag nit ba tax nga bëgg koo défendre kut kut kut ku ci mel ni ay ñoom professeur Ngouda Mboup en tant que des universitaires des professeurs d'université di wax la nga xam ne dañuy manipule le droit pour l'intérêt de Ousmane Sonko c'est très dangereux parce que dégg naa ko moom Ngouda Mboup mu ne pour ñu mën a badi barricade kër Ousmane Sonko il faut que état bi nekk en état d'urgence wala état de siège mais loolu c'est dangereux en tant que universitaire naan dañuy xaar ba nekk état d'urgence wala état de loolu moom mooy pratiquement état bi perte na nguur gi parce que état d'urgence wala état de siège bu ñu fa yeggee c'est le transfert du pouvoir de l'exécutif vers les forces de défense et de sécurité vers l'armée tey bu état bi demoon ba jël pouvoir bi jox ko armée loolu mooy état bi mënulatul dara nit ñi kooku fayit la defet la. mais ku xamante maanaam àtte nañ ko ba pare. Euh, la moo tax kon ba tey Ousmane Sonko des këram sans autant maanaam ñu war ko yóbbu fi ñu yóbbu lépp est-ce que ragal. état mënut a ñëw fekke nit rek mu jël ko dugal ko kaso état comme ni ma la ko waxee kuréel la état li mission moom mooy mu défendre les populations assurer l'ordre public nit ñi di dem ak dikk di def seen activité commerciale di seen i bien kenn bañ koo yàq seen i kër ak yooyu noonu loolu la état di def mission de sécurisation boobu noonu tey état bu xam demee ba xam ne ne yow Boubacar Anne yow saa yoo jógee ñu taal ay banque ñu toj ay banque taal leen jël seeni alal toj ay butiku jàmbur fitna gi di taal ay pneu nit ñi dootuñu liggéey état dina la teg dina la teg ci situation ba nga xam ne yow dootoo yàqal benn sénégalais loolu la ñuy wax assurer l'ordre public mais aussi il faut ngeen xam que ni Ousmane sonk fi mu toll il a été mis hors état de toute nuisance loolu mooy lan il est considéré comme un danger public par rapport à l'état du Sénégal il est comme une menace permanente cette menace la il faut or mettre hors état de nuire. mais ah ñaata nit ñaata ba ñaata bakken ñoo fi daanu bi mu jógee Casamance di ñëw fu mu jaar bakken daanu fa fu mu jaar ay xeex am fa état bi xamuñu li tax ñu anticiper dañ ko dem jëli ko yóbbu bu yegsi woon Tamba moom ay bakken yu bëree fa doon dee ndax xale yu Tamba dañoo taxoon ne bu fi yegsee bakkenam wala seen bakken waaye du fa romb. président xam naa taw ci tabaski lañ nekk waaye itam ku ne xam na sa taxawaay ci biir cees boobu ba léegi de 2012 à 2023 yaa ngi jàppale euh, sa leader le président Macky mais ba tey gisuñu nga am benn nombre tànk mais taxul nga reculer ci politique lan moo tax courage boobu. waaw jërëjëf Boubacar loolu bëri na euh, lu ñu ma koy laaj xam nga politique dafa nekk la nga xam ne ñun dafa dem ba nekk lu naturel ci ñun lu naturel moo di jug. d'abord di xeexal sa gox sa dëkk muy Thiès bi ñu nekk mais itam sa pays mooy le Sénégal bi ñu bokk xam nga tey Sénégal fi mu toll am na nuñ koy waxee naan xawma ku ku artuwul di nga àtte amul kenn kenn kenn kenn ka nga xam ne Sénégal soxal na la te juguloo wax ci li fiy xew walla nga jëf ci luy indi jàmm mais Boubacar man mi bu ma ko doxalee fitna googu mën nañoo xëy ñëw taal suma kër duma ci rëcc yow doo ci rëcc keneen ak keneen du ci rëcc donc loolu moo tax ñu ne la fitna kenn waru koo bay bayal fitna googu dañ ko war a moytu donc ñun ci liggéeyal suñu dëkk liggéeyal Sénégal vraiment moo tax ba euh, xaaruñu ay ndombal tànk découragé wuñu ñun daal ñoo ngi watu ci watu son excellence le président de la république Macky Sall di ko jàppale di ko liggéeyale ndax xam nañ ne liñ ne intérêt général tey bu mbiru Sénégal doxee na law ba ñu bëri xaj ci mais nag bu fekkee nag da ngay xool ne man sama sama position bopp rek tant que joxuñu ma poste man damay bàyyi mais yow dafa mel ni yow post boobu moo la intéressé wala moo la fa baax donc ñun li ñuy def naturellement duñ ko gëm te vraiment euh, ñoo ngi ci ci sans contre contrepartie di jàppale président luñ ci fekk nag ñu xam ne ne loolu la yàlla dogal mais daal li ñu gëm daal ñoo ngi kon ne di ko yaa ngi tey jii parti bi est-ce que organisé wu na est-ce que am na ñu jiitu ñu topp seen ginnaaw maanaam bu ngeen amee lu leen jaaxal ngeen dem ci ñoom bu ko defee ñoon yegg ko ci président dafa mel loolu dafa xaw a manqué à Thiès fan la mbir mi tàggee waaw il faut reconnaître que vraiment cadre de concertation bi ñu bëggoon di waxtaanee mbiri parti bi wax ji di law di yegg ba ci kilifa gi effectivement loolu amul non seulement amul mais dafa yàq lu bëri ci sunu liggéey ndax nag bu ñuy wax politique si la base mais bu fekkee base bi dafa dañoo ñëw ci responsable yi wax ak sa responsable yow mi responsable mënoo jot ci président mënoo jot ci ku jot ci président mais coupure day am bu coupure amee finalement après frustration day am bu frustration amee rek liggéey ba day taxaw te bu liggéey ba taxawee day feeñ ci résultat électoral loolu nag effectivement comme ni nga koy waxee lu ñu gàllankoor la mais yaakaar nañ incha allahu rabi sous peu de temps xëy na peut être président mi nga xam ne ñun moom la ñuy liggéeyal moom la ñuy jàppale dañ ci jël ay matuwaay yu am solo. fi euh, moo di gis nañu que njiitu réew mi woote woon na dialogue national ba boobu daanaka euh, ndar képp nañ ko ba sax moom junj na nit ñi que kat dina wax position am kii troisième mandat bi tey ji yéen itam yaakaar naa ñu bëri ci yéen président Macky Sall waxagul waaye waaye dañ ko bëgg maanaam porte candidat. mais buñ ko potul candidat kan la ñuy porté candidat Boubacar mais c'est-à-dire fi Sénégal toll on n'a pas besoin de rupture. mais nag ngeen nekk am na ñaari mandat mais ñaari mandat ci nekka mais Boubacar 7 ans ak 5 ans mënoo koo boole c'est pas possible ceebu jën ak mbaxal mënoo ko boole yàpp ak jën mënoo ko boole c'est-à-dire li leen juriste yi waxul moom mooy que toute modification d'une loi entraîne euh, son abrogation et impose de fait une nouvelle loi tey boo déggee dañ naan la loi abrogée et remplacée par la nouvelle loi nangam nangam nangam nangam dañ la koy siiteel mënuñu jóge ci loi constitutionnelle ba nga xam ne moo indi woon un mandat de sept ans ñu jaxase ko avec une loi constitutionnelle bi nga xam ne moo indi mandat bu cinq ans ci ban loi la ñuy basé wu soit dañuy basé wu ci loi constitutionnelle buy indi mandat sept ans ñu xam ne président dafa war a ñaar kon ñaari mandat sept lay def dem wala soit ñu basé wu ci pris ci loi constitutionnelle bi indi mandat bu cinq ans ñu war a xam ne ne président ñaari mandat cinq ans la war a def muy bii bi mu njëkk a def ak benn bi ci topp parce que dañ ne la durée du mandat est de cinq ans te ñoom ku ci ku ciy wax toujours du wax la durée boo seetloo toujours kuy wax danaan loi bi def ne nul ne peut plus de deux mandats constitutionnels fa la ñu yem et la durée bu leen bu fekkee tey bu fekkee loi constitutionnelle bi daf ni nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs kon président bu ko neexee mandat bu fekkee waxuñu ci durée bu ko neexee mandat cinq ans bu ko neexee yóbbu ko dix ans. kon da ngeen ne ma man dañuy waxtaan man man sénégalais yi ñuy déglu ak internet ak mbokk mbokk internautes yi laay waxtaanal. damay bëgg des fois aussi xam nga du yow journaliste bi mais ñi ñuy déglu. ñu bon mu mun nañ maa bañ a gëm ndax man damaa far xëy na dëgg la waaye ku ci toog sa aqulaay taala nga indi xam-xam ah boo ragalul yàlla boo ragalee yàlla di ngeen a juuf mi li mu wax yenu na maanaa ndax nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs point loi bi waxul durée waxul dara Macky Sall def na benn mandat bu sept ok comme amul durée bu ko neexee mandat bi mu yóbbu ko 10 ans wala mu yóbbu ko 15 ans loi bi waxul durée mais loi bi alinéa bi njëkk bi daf ne la durée di mandat est de cinq ans nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs cest bu la indilee durée ba pare moo ngi lay wax na nul nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs de 5 ans. am na droit bokk ci beneen élection bii di ñëw 2024. ku la wax ne bokku cee bokk. day wax lu ko neex. yow su bokkee da koy jàppale. mooy mooy suñu candidat amul bu bokkee mooy suñu candidat mag le président Macky Sall ah en tout cas de bu ko. ku mel ni Idrissa Seck euh, pour ñu tënk rek ku mel mais ku mel ni Idrissa Seck ñoom ñaar ñoom ñoo bokkoon nekkandoo mais Idrissa Seck bi mu génnee dafa ni Macky daal maanaam amul droit bokk. waaw mais Olof Ndiaye def na ku sa wujju di sëlëm doo set. ah mais léegi ay wujju lañ ñu woon ay wujju fan bi bi bi mu nekk ci biir léegi ay wujju lañ. ku ci nekk yaa ngi wax la nga xam ne mooy jëm mooy moo war a éliminer sa sa sa sa sa sa sa moroomu opposant mais xanaa xam nga loolu sax moo dal waaye yeew yi gii ngay dégg ñoom Ousmane Sonko Khalifa ku ci nekk ñoom dañoo nekkoon ci biir yeew yi wóolantu ku ci nekk yaa ngi xaar ku ci nekk sa dossier judiciaire bu bu la bulo la nga nekk la candidat de yeew yi mais dafa am la nga xam ne du man du yow du président du opposant du kenn maanaam Sénégal dafa nekk am ay institutions yu valable yu ñu reconnaître ñi nga xam ne ñoom ñooy wax ni diw war na bokk diw warta bokk coow li nag mun naa bari de ñun bu lañ bu ñu neexee ñu ne Macky sàll day bokk bu ñu neexee ñu ne Macky Sall mooy suñu candidat bu conseil constitutionnel taxawee ne warul bokk du bokk mais bu day bokk kan moo war a mën a teree bokk mais ñun dañ ne ñun Macky sàll mooy suñu candidat. jërëjëf président ndokkee nañ bu baax a baax bàyyi nga tàggatoo ak ñi ne waaw di leen jaajëfal vraiment di kontaan ci jotaay bi ndax euh, am na solo. yéen ñu permettre tout temps ñu waxtaan ak askan wi waxtaan ak Sénégal ndax waxtaan ci la nit ñi war di gimantoo gimeekoo ñii mën nañoo far fële ñii far fii ku ci nekk di défendre camp ba nga nekk mais ci biir waxtaan mais ci la ñuy waxante dëgg da ngay bokk ak nit ndey ak bàyyi ci biir kër gi fii nii mais ngeen bokk benn kër mais boo leen waxantuwul dëgg doo leen jubo donc il faut ñun entre politiciens ñu waxante dëgg mais itam ci ñu wóolu suñuy institution ñu wóolu état du Sénégal état du Sénégal président Macky Sall moomu ko day dem ba ko fi keneen dafa war a ñëw continuer avec l' du Sénégal état du Sénégal kenn waru ko salir kenn waru ko daaneel kenn waru ko ñàkkal fayda kenn waru ko def lenn lu ñaaw moo tax bu ma gisee ñu jël ay avocats yu tekkiwul dara ay Juan Branco ñu dem ba bitim réew naa dañu yóbbu ay Sénégal cour pénale internationale ci ay waxi caaxaan ci ay waxi fontu mais Sénégal duñu ñu toog di xool ay terroriste yu associé ak ay nit yu dem ba nekk ay ci sous-région ay Sierra Leone Tchad ay ñëw naan dañuy taal suñu ñu toog di leen xool mais ñun ñàkkuñu fayda boobu il faut donc ñu xam ne ne le Sénégal est un pays souverain et qui sait prendre toutes ses responsabilités en tout cas maa ngi leen di jaay jëfal di baalu ñëpp ak ci weeru tabaski bi di leen baal ak ah di kontaan ci suma mbokki waa APR yi nga xam ne kii di Pape Demba di responsable sëñ Saliou Ndiaye moom di responsable fekke jotaay bi vraiment ñoom it ñu ñëwoon ziar si ma c'est pour bu diir que APR li muy jaxasoo jaxasoo am na ñi xam ne ay xarit lañu. dara mënu leen a féewale même politique bi ñu boole woon sax bu demee ñun relation bi am na ñu seq jàmm di waxtaan di kon di di demalante te loolu la war a demee pour parti war a mën a am base en tout cas di leen jaajëfal encore une di sant yàlla jërëjëf merci beaucoup. Euh, mbokk yi li moo nekkoon euh, tey euh, ndokkeel bi ñu ñëwoon defal leen ko fii ak Ousseynou Diouf di responsable politique fii ci APR di leen ñaanal jàmm ñaan yàlla ñu teew ko ay déwén Sénégal yaa yàlla def yàlla